ñu fas yéene waxtaanee tey suñu ba jumtukaay wala xarala yi nga xam ne doomu aadama yi daañu ko jëfandikoo waaye ci utilisation yi nga xam ne li ci ëpp tey ci lu ñuy wax fitan muy fitna yi nga xam ne mooy am ci biir kër mooy am ci mbedd bi mooy am ci bureau suñu liggéeykaay daanaka jumtuwaay yooyu ñoom ñoo ko sabab mu nekk nag responsabilité bi nga xam ne ku nekk ci ñun ku nekk ci ñun ala kulli xaal sa responsabilité la li tax mu nekk sa responsabilité moom yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni ku nekk ci ñun ab sàmm nga te sàmm bu nekk daañu la laaj li nga xam ne mooy lim ne da noo ko sàmmee ñu gis nag xarale yooyu daanaka lu ñuy wax ni paaka ñaari boor la dafa am ay njëriñ njëriñ yu bari masha allah waaye njëriñ yi taxuñoo jóg li ñu tax a jóg tey mooy li nga xam ne mooy lor yi amaana li ci ëpp ci ñun xam nañu njëriñ yi amaana li ci ëpp ci ñun tamit xam nañu li nga xam ne mooy lor yi waaye nuñ koy moytoo waaye léeg-léeg seytaane muy ñëwee ba oyofal ñu li nga xam ne mooy mbir nga xam dañuy wax ni ah garaawul garaawul daanaka li lay doomu aadama rek wala li la andil fitna rek garaawul boobu da cee bokk moo tax bokk na ci jumtuwaay yooyu yi nga xam ne daanaka ñoo gën a fës. ay téléphone portable bokk na ci jumtuwaay yooyu li ñuy wax li nga xam ne moom mooy rajo bokk na ci jumtuwaay yooyu li ñuy wax télévision ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne moyen la yuy jokkale li nga xam ne mooy ay information moo xam da koy toxal ci ay nit yóbbu ko ci ay nit moo xam da koy génnee ci dëkk yóbbu ko ci li nga xam ne moom mooy dëkk ah, jumtuwaay yooyu nag dafa am lu bari li nga xam ne dañ koy yàq tey sunu kër yi bokk na ci li nga xam ne mooy li yàq ci kër yi mooy lu ñuy wax tey waxtaan bi daan am ci diggante doom ak baay ci diggante soxna ak li nga xam ne mooy boroom këram ci diggante njaboot ak li nga xam ne mooy ay kilifaam daanaka dafa dàgg li nga xam ne moom mooy communication boobu te li ëpp ci ñun tey yaa ngi yore sa téléphone portable yaa ngi jokkoo ak benn monde bu ñuy wax monde virtuel monde bi nga xam ne gisoo leen imma ñu nekk ñu la jege wala ñu la sori lool. waaye boo xoolee ñi ngay jokkoo ak ñoom moo ëpp fuuf amaana li ngay jokkoo ak sa wayjur ni ngay jokkee ak ñoom moo ëpp fuuf amaana li ngay jokkoo ak li nga xam ne moom mooy sa soxna wala ak sa njaboot moo tax bokk na ci conséquence ci li nga xam ne ay yàqu-yàqu yu mu jëmbat tey ci kër yi mooy tey li ñuy wax li nga xam ne moom mooy distanciation mooy tey boo duggee ci kër daanaka da nga daan toll ci mbedd ne asalaamaaleykum laata ngay dugg ñu tontu la. waaye léegi di nga affran di nga franchir première porte muy porte bu mag bi nga ne asalaamaaleykum fëgg daanaka kenn du la dëgg nga ñëw ci ñaareel bi fëggaat kenn du la dëgg waaye léeg-léeg da dem ba dugg ci biir salon bi soo soog a di xam am ku fi nekk waaye nag léeg sax nga dem ba toog ci salon bi nit ñaa ngi nekk ci li nga xam ne mooy jumtuwaay yooyu ba fàttee ni daanaka ñoom nekkuñu ci li nga xam ne moom mooy ci benn monde bu réel waaw ci monde la ñu nekk kon bokk ci li nga xam ne tey andi na ko ci ay yàqu-yàqu li ñu boole woon ak suñuy wayjur lu ñu boole woon ak suñuy soxna ak suñuy njaboot nga xam ñu toog léeg-léeg ñu jox la ay histoire di la jaar-jaar di la nettalil léeg-léeg seen i cosaan di la jàmbaar yi nga xam ne ñoo fi jaaroon ci diine tàmbale ko ci yonent yi ci saxaaba yi ci taabiin yi ci atba taabiin yi ba ci li nga xam ne mooy kilifa yu mujj yi lu ñu def ci li nga xam ne mooy diine di la koy nettali waaye léegi daanaka téléphone bi moo ñu koy nettali te léeg ñu koy nettalilee rek wala télé bi imma mu nekk lu baax imma mu nekk li nga xam ne moom mooy euh, lu safaan kon mbokk jullit yi bokk na ci musiba yi nga xam ne tey xarale yooyu dinañ ko andi mooy lu ñuy wax divorce muy passé tey boo xoolee daanaka jëkkër ak jabar ñaari way dencante li leen di boole lu jafe la li ci ëpp li leen di boole bokk na ci mooy kawlal nga xam tëdd la te léegi la sax bu ñu tëddee nga gis kii dina féete ne la yore téléphone am te li féete ne jàkkaarloo tel télé am wala kii nekk ci rajo bi kii nekk ci li nga xam ku nekk am ci li nga xam ne mooy lu la occupé nga xam waxtaan bi nga doon def lu ñuy wax shura baynahuma ngeen di waxtaan di diisoo ci seen i projet ci seen i programme ci njaboot ji ak tey de lii ak lii laa dund ak xale yi tey de lii ak lii ak lii laa am waaw lan moo ci solution daanaka loolu yëpp tey dañ koo ñàkk waaye bokk na ci li nga xam ne mooy lu sabab tey li nga xam ne mooy bokk na ci sabab yi tey divorce yi bëri muy fas yi bëri lii da cee bokk tey muy téléphone portable li koy sabab mooy soxna si day nekk ci li nga xam ne mooy ay jokkoo amaana yu daganul sax parce que jigéenu jullit amoo droit di jokkoo ak ki nga xam ne mooy ku la lewul su ma nee ku la lewul ci toog di waxtaan yenn heure yi bu fekkee ci wàllu liggéey la naam loolu islam da ko waaye bu fekkee ci beneen anam la mën a toog diggante minuit ba trois heures du matin diggante vingt deux heures ba minuit nekk ak sa bi di jokkoo ak li nga xam ne moom mooy ay étranger te sa borom kër mu ngi lay jege wala yow mii ku góor tamit nga koy def muy safaan bi di jokkoo ak li nga xam ne moom mooy say dagan na seen diggante nga fàttee ni am na ki nga xam ne da nga koo takkoon ci farata ak sunna daanaka bokk na ci li nga xam ne moom mooy luy sabab li nga xam ne mooy divorce yi lu ñuy wax sa jasus muy di luñ ñu tey suñ portable yëpp ala kulli xaal dafa am ay code am na code yi nga xam ne mënul ñàkk ci portable mooy lu ñuy wax code de déverrouillage mooy pour mën a tijji téléphone bi faw nga am benn code bi nga ciy def ku nekk mën a am accès bañ am accès li nga xam ne moom mooy sa tele wala bañ a am accès ci sa wifi wala bañ a am accès ci li nga xam ne mooy sa téléphone portable kon may nañ la nga am code yi nga ciy def waaye da ngay gis code yooyu ñun léegi limité wuñu ko dañoo ut ay code code code code ba daanaka suñuy paramètres sax dañ koy codé naam paramètre mën nga koo codé li boo ko connecté nit ki du mën a dugg pour am lu muy changé wala lu muy soppi wala lu muy envoyé waaye suñuy appel dañ koy codé suñuy SMS dañ koy codé suñuy média dañ koy codé dañuy codé codé codé ba ndeysaan am na accident bu métti bu amoon ci jamono yee passé accident bu mu amee ñi doon seet ñi nga xam ne ñoo génn àdduna foofu seen téléphone yi daanaka ku nekk sa téléphone dafa dafa am code mu am benn waaju liggéey ci àll bi ñëw ak véloom pour secourir leen waaye bu mu ñëwee nee na portable bu mu yëkkati pour mu mën a woo sapeur nday fekk portable bi verrouillé daanaka ci fa nekk ñoom ñëpp accident bu grave sax waa xoolal léegi code bi nga def sa portable amaana mënoon na laa sauver amaana am na kenn ki nga xam ne mën na koo sauver waaye tamit di nga mën a am li nga xam ne mooy ndimbal ci nu mu gën a gaawee kon bokk na ci li nga xam ne mooy sabab yi mooy fase yu bari tey muy lu bu ñuy def mooy sa borom kër bu defee code nga ne ko lan moo tax ngay def code te dafa am looy nëbb ci téléphone bi da nga fexe ba am ay mbir yu ngay def pour mëna xam lu nekk ci téléphone am lég leeg yow mi borom kër tamet yow mi nga xam ne yaay kilifa lég leeg ngay jéem a luñu ci li nga xam ne moom mooy téléphone soxna ci di seet ndax amul ñu ngay jokkaloo te loolu tax am nga ci droit naam am nga ci droit su ma nee am nga ci droit muy mën a xool ndax amul li nga xam ne mooy ay njumte yu muy def nga mën koo orienté mën koo wax ne lii de baaxul tul lii ak lii ak lii waaye léeg-léeg ñun suñu yéene du nekk loolu suñu yéene mooy xool ndax danaa ko jàpp waaw ndax danaa ko jàpp lu ñuy wax la mais dans la sac loxo si poos waaw su ma ko jàppee rek moom ma may ko li nga xam ne moom mooy baat kon yii bokk na ci li nga xam ne moom mooy lenn ay divorce yu koy sabab muy jël li nga xam ne moom mooy ay information yi nga xam ne waroo ko jël moo xam ci sa borom kër la moo xam ci li nga xam ne moom mooy sa soxna mbokk jullit yi bokk na ci musiba yi nga xam ne xarale yooyu dinañ ko def muy lu ñuy wax wesaare information bu wérul muy lu ñuy wax de fausse information tey da ngay gis nit ki nekk ci kaw lalom mu gis benn statut gis benn publication rek jël na ko rek moom mu partagé ko li ngay partagé laata nga koy partagé bokk na ci li nga war a def mooy gëstu ndax lii wér na wala wérul ndax lii wér na wala wérul léeg-léeg nga gis li nga xam ne sax da lay reewloo ñu ne la waaw benn gardien bu nekkoon màkka la euh, nekkoon ci jàkk yonente bi sallallahu alayhi dafa am lu mu gént ci gént boobu lii ak lii ak lii daanaka xista bu xaw gudd la ñu ne nag lii këpp ki nga xam ne partagé woo ko boo ko partagé wul fukki nit fii ak ñaari fan di nga gis musiba waaye am na kenn ki nga xam ne bu ñu ko joxee sax daf ko soofantal garde ko ci tirwaalam ñaari fan mu génn àdduna xoolal ma tàppale yooyu waaw suñ doon laaj jamonoy partagé dafa amoon yonent bi jamono yonent bi saa sallam kan moo créé woon foofu benn cloud wala li nga xam ne mooy benn wala créer ben système Android mo xam bu meuna jokalé ay doom aadama ba ñuy mën partager partager nan la doon démé ndax da ngay jël sa kayit jël sa fas war bi ab dëkk nga partager ko wala gis nga ñu bay li nga xamné ne moy mooy ante da ngay xol ni li nekkul li nga xamné ne moy logique information yooyu nak dafa bari lool lég lég duñu yem sax di partager information bay ray doom aadama bay ray faat nit wax nit yi génn na àdduna ñu commencé di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma igfir lahu warhamhu di commencé di ñaan fekk kooku mu ngi dund benn waay moo nekk ci roqam rek am lu mu bind rek daanaka tas ko ci li nga xam ne moom mooy information nag dafa nekk lu mën a ab réew information gis nga kuy joxe sa information moom day andi ay source tey yow muy jàng ci wàllum jàng nasaraan am ay mbir nga xam ne bind ci say devoir wala ci say composition faw nga andi li nga xam ne mooy lu wax dalil andi ay argument luy argumenté ni li ngay wax nii lu wér la lii fii laa ko jëlee boo demee mosquée Bagdad da nga ko fa fekk lii fii laa ko jëlee boo demee tel téere sàngam da nga ko fa fekk waaye nag tey daanaka dañuy gaaw lool ci li nga xam ne mooy lu ñuy wax ci taf information borom bi tabaraka wa taala wax nag yéen ñi nga xam ne yéen a gëm in jaakum fasikum bi nabayin fa tabayyanu waaw bu ñu leen andilee li nga xam ne mooy ak xibaar xibaar boobu da ko segg da gis ni lii lu wér la ngeen mën a joxe li nga xam ne moom mooy information yooyu wa illaa rek mën nga def li nga xam ne moom mooy musiba mbokk jullit yi bokk na ci li nga xam ne mooy musiba yi xarale yooyu di def ci kër mooy lu ñuy wax day wesaare li nga xam ne mooy mbonte day wesaare li nga xam ne moom mooy lu ñuy wax ya muy ay ñaawteef jamono nit pour mu defoon li nga xam ne mooy mooy yàlla fi ngay jaar pour nga mooy yàlla day jafe lool benn booy génn di nga laqatu fi ngay dem boo koy dugg bu dee bërëb bu mooy kaay yàlla di nga laqatu bu dee moo xam sàngara bi ngay naan la moo xam loterie bi ngay dem def la moo xam sax leneen li ngay dem def li nga xam ne mooy ci ñaawteef yi la waaye da ngay laqatu doo nangu nit la parce que am nga kersa ñu gis ne la di la lan lay def ci nga xam ne mooy bërëb bi ndaxte bërëb bi du bërëbu jullit waaye léegi nag da ngay nekk ci sa kaw lal daanaka mbir yooyu yëpp nga am ko da ngay nekk sa kaw lal mën a am li nga xam ne mooy lu ñuy wax tey euh, pari nga mën a am lu ñuy wax tey xbet nga mën a toog commandé li nga xam ne mooy sa sàngara ñu andil la ko livré la ko defal la ko ci paquet kenn du xam li ñu la livré gis nga waaye li gën a grave nga mën a am li nga xam ne moom mooy lu ñuy wax njaaloo en direct tey daf dañ fa egg tey Sénégal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey gis ay doomu adama yi nga xam ne tey daanaka toll nañu ci yées toll nañ ci mbon ubbi li nga xam ne mooy seen page page Facebook lay doon wala benn page TikTok ñu ne képp ki nga xam ne bëgg nga jaaloo ak man ci distance rek da nga may dugalal cinq mille francs wala nga dugalal ma dix mille wala trois mille boo ma dugalee rek incha allah dañuy jokkoo li nga bëgg ma defal la ko da nga yëg sa bopp subhanallah la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi tey fii la xarale yi yóbbu li nga xam ne moom mooy population bi fii la xarale yi yóbbu li nga xam ne moom mooy jeunesse bi fii la xarale yi tey yóbbu li nga xam ne mooy doomu aadama yi ba daanaka amatuñu li ñuy wax contrôle lu ñuy wax self contrôle mënatuñu téye suñ bopp ngir lan xarale yi fu ñu àgg ak li nga xam ne moom mooy tey doomu aadama yi moo tax bokk na ci li nga xam ne mooy wesaare na ko muy ñaaw ñaawteef yooyu tey da gis doomu aadama li may wax ni léeg-léeg ñun dañuy ñeme yàlla ragal li nga xam ne mooy ak mbindaapoon waaw tey ku nekk ci ñun buñ la ne woon am na benn jëmm bu nekk Allemagne wala am na benn jëmm bu nekk France mu ngi yore say vidéo doo nelaw doo nelaw amaana sax yaa ko def amaana da nga doon caaxaan amaana da nga ko doon def ak sa borom kër mu rëcc ba àgg foofu waaye da gis ni doo nelaw parce que da jàpp ni moom sax kenn ci ñoom day woowee boppam moom mooy monsieur le juge juge moom defe naa borom bi tabaraka wa taala te moom mooy atteekat bu gën a maandu ci atteekat yi waaye moom nee na day juger ay doomu aadama bu fekkee nit ki def na am ñaawteef wala ñombe da nga ko koy envoyé mu woo la téléphone ne la ndeef ndax yow la waaw bu fekkee yow la dinaa def live dinaa def lii ak lii ak lii ak lii ak lii subhanallah subhanallah léeg-léeg nit ki mun na ko def ci cadre bi nga xam ne nekkuloon mooy yàlla amaana dafa yàlla dafa nattoo ab jëkkër bi nga xam ne moodu moodu la mu ne ko ah damaa bëgg a gisee ak yow woote am na yi nga xam ne nit war na koo moytu parce lii benn appareil rek la te appareil dafa am ku koy contrôler la ciy def déedéet am na kenn ki nga xam ne mu ngi toog ci rokkam lu mu soxla ci appareil bi liñ ciy dugal ak luñ ciy génne moom xam na ko lim soxla tamit mën na ko cee jël ci li nga xam ne moom mooy te yow yëgoo ko wala nga yëg ko li tax ku nekk ci ñun application booy installé ci sa téléphone lan lañ lay laaj ay droit est may nga ñu ñi dugg fii nga ne waaw est may nga ñu ñi def lii nga ne waaw est-ce que est ñi posé la ay questions yu bëri yow yàkkamte nga da ngay défile rek nga coché lépp nga ne ok moo am accès ci sa SMS am accès ci sa vidéo am accès ci sa appel am accès ci sa lépp léegi am na waa ji nga xam ne moom ab pirate la mën naa nekk ci roppam mën a dugg sa téléphone jël information yooyu mën na nekk ci roqam dugg sa ordinateur jël information yooyu gis nga bu ko jëlee nag am kenn fu mu koy jaay ci waa ji nga xam ne amaana day wooteew monsieur le juge wala ki nga xam ne dafa nekk fi Sénégal mu ubbi fi daanaka benn site bi nga xam ne surtout mooy yàlla la subhanallah subhanallah subhanallah mbokk yi xoolal tey ñun Sénégal daanaka foofu lañ toll wala adduna bi tey foofu la toll na ñun ñi nga xam ne ñooy wooteewoo suñu bokk ay jullit ñun ñi nga xam ne dañuy wax ni tey 95% pour cent wala voire 97% pour cent de musulmans la waaye da gis ni ñun nuñ koy utiliser dafa jéggi dayoo dafa jéggi dayoo lool moo tax nga gis ni léeg-léeg ñi ñeme yàlla li ñuy def dañuy wax yàlla maa ngi def yàlla maa ngi def de gis nga ma waaye nag kii ragal naa ko parce que kooku bu ma gisee rek musiba dina am yàlla amaana may na la benn temps nga dund waaye ëllëg yowmal qiyaam dina la xisaab ci li nga xam ne mooy li nga doon def mbokk jullit yi kon bokk na ci li nga xam ne dina ko wisaare mooy ñaawteef yu ñuy wax ñaawteef yi nag yaatu na lool bokk na ci li nga xam ne tey dana ko def ci li nga xam ne moom mooy société lu ñuy wax wax kàddu wax yu ñaaw muy ay saaga doomu aadama daanaka ay jamono pour nga dégg nit ku saaga lu jafe la lu jafe la laay wax waaye léegi saaga daa mel nii ku jël sa potu ndox rek di ko naan tey suñ kër yi dañuy saaga mbedd yi dañuy saaga léeg-léeg sax nga dem ci jàkk yi sax fekk ñuy saaga léeg am ay jàkk yi nga xam ne fekk ay imaam wala ay ustaas yi nga xam ne dañuy saaga subhanallah ñun da leen war a yar ñu xam ni làmmiñ bii lu muy génnee rek dafa war a nekk li nga xam ne moom mooy lu jaadu ndax ëllëg borom bi tabaraka wa dina ko xisaab waaye nga gis ko am sañ-sañ nekk ci téléphone jël ab benn mbindaafoon jël doomu aadama bi nga xam ne amaana sax def ko dara xamu ko sax mësul xam kii mooy kan jox na koy jox nañ koy information rek daanaka mu commencé di wax lu ñaaw ci moom waaye du yem ci lu ñaaw dana saaga ba àgg fi nga xam ne waru faa egg muy saaga ay wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nag sëpp ki nga xam ne saaga nga wayjur jàmbur jàppal ni sa yaay nga saaga ku saaga bàyyi jàmbur jàppal ni sa bàyyi nga saaga kon tey ana ñan ñooy jàngal tey suñuy doom yi sa saaga li ci ëpp ñun wayjur yi la da ngay gis sa doom bu def li nga xam ne mooy njuumte amoo lu dul daggal ko fu mu gën a ñaawee xale bi enregistré loolu bu génnee ci mbedd bi rek moom tamit da koy appliqué bu amee benn moroom moom ko def rek da ngay gis da koy dagg subhanallah mbokk jullit yi kon bokk na ci yi nga xam ne tey dina ko def ah, muy lu ñuy wax saaga tey dina ko siiwal waaye lu gën a métti ci Sénégal tey saagakat yooyu tey ñoom la ñuy defal promotion tey da ngay nekk saagakat bu gën a ñaaw làmmiñ ci kaw suuf nga nekk milliardaire da ngay nekk saagakat bu gën a ñaaw làmmiñ tey nga nekk millionnaire tey nga dem ba ab président mu mën laa accueillir di la déglu naam président dafa war a nekk ku tolérant dafa war a nekk ku yaatu waaye nit ki nga xam ne dafa def ay musiba yu fës kenn du ko bay noonu dañ koy corriger mooy saa yu ñëwee rek ne ko lii yaa ko doon def bés boo ko defee rek dinaa la tëj bés boo ko defee dinaa teg ay daan yow nga génnee ay loi yi nga xam ne sax képp ki nga xam ne tooñ nga doomu jàmbur tooñ nga doomu aadama nga wax ko ay kàddu yi nga xam ne yu ñaaw la bu ko capturé nga xam am na information bu dem déposé leen ñu teg la ci yoon su boobaa saaga yi dina wàññeeku waaye tey dañuy saaga ba saaga sax yàlla saaga ba saaga li nga xam ne mooy yàlla parce que am na kàddu yi nga xam ne boo ko waxee yàlla rek mooy yaa ngi koy saaga subhanallah te doomu aadama yi tey toll nañ foofu bokk jullit yi bokk na ci li nga xam ne moom mooy xarale yooyu tey lu ñuy def ci doomu aadama ab tayal tey da ngay gis ci wàllu jaamu yàlla mbir mi daf ñoo tayalloo lool li tax mu tayallooñ mooy temps bu ñuy def tey ci xarale yooyu moo ëpp temps bu ñuy def ci jaamu yàlla juróom julli la am ci bés bi muy salaatul xams gën kaa bëri julli bu gën a gudd ci julli yi fekkee ko mooy dix minutes bu ci gën a néew amaana cinq sept ba huit minutes waaye xoolal tey bu dee dix minutes la cinquante minutes nga am ci li nga xam ne moom mooy vingt quatre moom nga war a jox borom bi tabaraka wa taala bu dee boole woo ci naafile jàng alquran ak yenn azkar yi nga xam ne da ko def waaye xoolal tey ci wàllu jaamu yàlla tey nu ñu tayale nit ki day nekk ci téléphone ba ñu ne asalaatu xayru mina nawm mu réveil li nga xam ne moo ko nar a yee mu fay sangoo mbàjjam ñu ne ko yow mu sa mbàjj tëdd bi muy nelaw bi ngay def nii julli moo ko gën asalaatu xayru mina nawm noddkat bi ko wax subhanallah waaye nga gis nit ku am sañ-sañ mën a toog vingt deux heures ba cinq heures du matin mu ne laa mën dee dëmb nelaw ma waaw dëmb di damaa doon seetaan ay ay dama doon seetaan film dama doon jokkoo ba daanaka cinq heures nga ne ko waaw ndax cinq heures jël nga benn waxtu rek dem jullee ko jàkka ji waaye waaye damaa biddante de waaye dafa dëggal damaa biddante waaw damaa biddante woon waaye incha allah dinañ dinañ ci bàyyi xel ñi lay demee mbokk jullit yi xarale yi dafa bokk ci li nga xam ne tey da koy andi tey tayal ci wàllu jaamu yàlla da ngay gis ni booy jaamu yàlla sax da gis kuy kàbbar teg téléphone bi ci kanam bi xool ndax amul appel buy ñëw boo kàbbaree appel bu ñëw ndax mën ngaa décrocher ndax nga décrocher yow bayil sa téléphone ci kër gi bu bañ laa di euh, bañ laa déranger yow mi nga xam ne tey am nga fi nga mën a yóbbu sa téléphone mooy lu ñu wax noppiloo ko muy silence wala nga yóbbu ko mode avion yóbbu ko mode avion waaye xoolal dañuy bind partout éteignez vos portables s'il vous plaît ñu leen di ñaan sax ñaan donte loolu dafa war a nekk farata waaye dañ leen di wax s'il vous ngir yàlla fay leen seen téléphone yi waaye da nga gis taf nañ ko partout ku ñëw bay balaa ñuy liqaam wala bu ñu liqaam bi pare imaam ne nañu noppi la portable nga gis am ki nga xam gis na ko nee na am na appel bu muy xaar appel boobu moom mënul def portable am silencieux <laughs> subhanallah yow mënoo mos ko waane dañ la woo nga décroché li nga xam ne mooy appel bi mënul nekk c'est impossible appel bi doo ko mos a waaye da koy teg sa kanam di kabar di bay xel appel yi nga xam ne ñooy ñëw waaye am na doomu aadama yi nga xam ne toll nañ nga xam ne bu ñu bu leen woowee sax dañuy décroché di def ay grimaces yi ñoom dañoo nekk ci <coughs> pour wane ni ñoom ñu ngi julli subhanallah xoolal sabotage xoolal caaxaan yi yaa ngi julli nit ki woo la nga décroché di won def ay grimace def ay subhanallah xoolal tey xarale yi fu ñu yóbbu ci li nga xam ne moom mooy wàllu tayal ci wàllu jaamu yàlla waaye lu ñu yóbbu ci li nga xam ne mooy lu ñuy wax perte temps tey koo gis ci jeune koo gis wax ma la jeune léegi daal mag yi sax dañ cee bokk léegi nga ay jamono daanaka xale yi ñoo ci gënoon a sóor ñoom ñoom ci gënoon a sàkkan waaye tey ku doon jënd tey sa wayjur bu góor wala jigéen téléphone nga xam yaa ngi koy gis bés bu nekk aajawul ne ko Europe nekk Europe amaana mën nañu wax fa nga wutal ko téléphone pour ngay mën a jokkoo ak moom ci li nga xam ne mooy internet waaye boo ma utalul waaw man lii du ko jël utal ma tic tac gis nga léegi tic tac boobu mu ñëwee nag moom tamit dafa arrêté li nga xam ne mooy seen jaamu yàlla wala mu wàññi ko waaye dafa jël li ci ëpp ci waxtu ci ñoom di nga gis ko doon julli yoor yoor bay na julli yoor yoor ki nga xam foo ko gisoon mu ngi tudd yàlla subhanallah alhamdulilah la ilaha illallah allahu akbar léegi foo ko fekk mu ngi def nii rek mu ngi def nii di reetaan rek mu ngi def nii di reetaan rek mu ngi def nii di reetaan bu déchargé ñu branché subhanallah kon léegi yematul léegi ci ndaw ma waaye mag ñi sax léegi ñu ngi leen di occupé ci li nga xam ne moom mooy téléphone boobu mbokk jullit ci li nga xam ne tey dina ko def ci li nga xam ne mooy dund nit ki mooy lu ñuy wax euh, tooñ doomu aadama ci li nga yëg ak loo yëgul nasaraan bi di ko wax tapage tey bari na ay doomu aadama yi nga xam ne tey ñu ngi tooñ alquranul karim mooy téere bu gën a màgg ci téere yi waaye yow jullit amoo droit teg alquran la léegi-léeg nga gis jàkk yi nga xam ne dañu def ay erreur erreur yi monumentale laa wax nga gis noddukat bi bu noddee premier moom nodd rek ñëw branché fajar cinq heures du am ki nga xam ne dafa war a xëy six heures am ki nga xam ne dafa feebar islam mayu la sax benn yoon ngay ubbi di vidé sa kii ñu jàpp ni loolu tag la parce que islam la waaw damay wone li nga xam ne mooy sama prière déedéet nodd yi ñu nodd sax dafa teel te da ngay gis fi ñoo nodd quatre heures du matin ñu ngi julli six heures quatre heures ba six heures kan mooy toog da nga am incontinence urinaire nga am problème tuur ndox nga am problème tànk am problème ak problème yu xam ñun ñëpp léegi dañoo feebar tey ndax du ñu bàyyi xel li nga xam ne moom mooy détail yooyu nga xam yow muy nodd ñëwal six heures sept heures la ñuy julli léegi nga ñëw daanaka six heures mooy trente minutes avant nga nodd bu desee quinze minutes ba salaat nañuy julli dem seen yoon parce que fu nekk da am activité bi ngay dox waaye xoolal islam fu mu la mayu tey nga jël sa alquran teg ko vidé ko fajar fan la la koy maye nga koy def ci mbedd te da ngay ñëw ci mbedd gis nit ki baare tali bi tali bi nga xam ne daanaka ñun ñëpp ko bokk nga ne damaa am événement religieux wax ma nag wàllu caaxaan àdduna yi la waaye événement religieux ci diine laay woote nga fermer li xam ne mooy quartier bi yëpp kenn du am fu mu romb te pourtant nga bayal fii terrain am nga école nga xam ne mën nga ko fa def waaye am na place yi nga xam ne sax mën ngaa fay dem defi li nga xam ne moom mooy sa événement foofu waaye doo ko def waaye wax ma la ci wàllu diine fi nga xam ne nag ci wàllu àdduna la nekk jël musique am ubbi ko ba mu sës teg ko ci mbedd musique dafa xaram jullit bi di ko déglu waaye wax ma la nga koy déglu yaa ngi koy fecc moo xam ci anamin boo koy feccee léegi fecc yi sax léegi dañ ko dugal ci saal yi tey da ngay dem ci saal de gym tey mënoo inscrit entraîné wu ngir lan li fay nekk ay jaaxaan li fay nekk ci ay mbonte parce que boo demee da ngay futteeku ay jigéen nga xam ne subhanallah nga mën a tàgg nga ne yow da ngay entraîné wu yow góor mi nga xam ne yàlla dina bind ci yàlla ni la bindee feebaroo amoo lenn la daal ci ay feebar nga jàkkaarloo ak jigéen yooyu nga ne noonu loolu deful dara war nga xoolaat sa bopp kon tey gis nañ tapage yooyu tey dafa andil fitna li nga xam ne moom mooy ci société bi wax na nag koy def ci mbedd amaa ne koo def ci benn place am na NINEA am na li ñuy wax am na ay kayit yu ko may amoo sañ dañ amaana dem fekk ko ne ko lii bu ko def waaye ki nga xam ne nag dafa toog ci biir këram teg ay bu fëram ubbi ko ba mu sës waaw bu leen neexee ngeen dëgg bu leen neexee ngeen bañ a dëgg en tout cas man damay musique sama musique waaw damay xàppi loolu ngay dëgg damay xàppi waaw yaa ngi xàppi ci li nga xam ne mooy ay bakkaar ëllëg amaana ay rongoñ la doon yàlla yàlla muccal incha allah aqulu ma tasmo astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه مكو جلتي دانك ليست دا فغود لول تاي بو نكو دون ليم من نانيو جلال اي وقت واي نانكو تنك سي ليغا خامني موم موي مصيبه ييغا خامني تاي امانه بو نكو مويتو رك بروم تبارك وتعالى من نانيو دافال ليغا خامني موي توفيق سي سون بير كري بوكو نا سي ليغا خامني تاي مصيبه يوي بور بروم تبارك وتعالى من لا ماي nga mën a organiser mën a ma mën a am stabilité ci sa njaboot mën a am stabilité ci sa sëy ak ci li nga xam ne mooy sa entourage moo xam sa wàllu liggéey bokk na ci ñu koy utiliser modérément mooy nga bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy nekk des addicts ay intoxiqué ñi nga xam tey daanaka kuy jël drogue wala kuy jël li nga xam ne mooy sàngara bu ko manqué nu muy mel ci moom téléphone bañ a mel noonu ci te ñu dañoo war a yar suñ bopp ci téléphone yar suñ bopp ci télé yar suñ bopp ci lépp li nga xam ne yooyu nga xam yow da ngay am heure booy mën a toog di jokkaloo bu di fekkee doo ci liggéey am na ñi nga xam ne moom dañ ci liggéey naam ñoom mën nañ toog ay heure di ci nekk parce que seen liggéey moo leen ko permettre waaye yow mu yor liggéey jàmbur da ngay dem ci ay bureau nga ñëw fekk waa ji sëgg ci téléphone am wala mu jàkkaarloo ak ordinateur bi nekk ci YouTube branché ay fiyam nga ñëw ne salaamaaleykum dégg la salaamaaleykum waaye sëñ bi loo la bëgg waaw patron bi ñëwagul de waaw ba ci kanam bu ñun tàmbalew ñu sax 9h la ñuy tàmbale 9h jotagul te ci sa contrat 8h nga def daanaka boo xoolee waxtu yi ñu la jox nga war koo liggéey yaa ngi lekk li nga xam ne mooy lu daganul parce que am na waxtu bi nga xam ne dugg nga ci Facebook dugg nga ci YouTube dugg nga ci Instagram dugg nga ci dugg nga ci dugg nga ci bu fekkee borom entreprise bi may la ko yaa ngi lekk li nga xam ne moom mooy àqam rawatina bu ñu la joxee liggéey kon bokk na ci lu ñu war a def tey mooy utiliser ko li nga xam ne mooy ci anam bu mucc ayib nga xam yow muy dugg di connecté wu na nga am heure bi ngay connecté ak bu nga dul connecté yow mi nga xam ne yaa yore sa télé boo ko def télé bi nga xam ne tey ay smart TV ñoo am tey daanaka dangay ngay synchroniser sa télé ak li nga xam ne mooy wifi bi li ngay am ci bi moom ngay am léegi far nag mu benn écran bu mag nga toog sa canapé doo julli doo jaamu yàlla doo askar doo def dara yow da ngay jàkkaarloo ak télé bi di zappé rek da ngay bi di rek moo tax nañu ut li nga xam ne moom mooy programme yi nga xam ne tey dina ñu jàppale waaye ñii seet heure yi nga xam ne yooyu la ñuy nekk en ligne te da ngay gis ab ndaw nga xam dafa yore liggéey jàmbur yore li nga xam ne mooy ay responsabilité nga gis ko mu nekk ba li nga xam ne mooy cinq heures du matin quatre heures nekk en ligne léegi sax pour effacer loolu dañuy dem ci li nga xam ne mooy parametre yi dindi loolu pour nit ki bañ a xam yan heure la ñu nekk en ligne pour bañ a xam ban heure la ñu nekk bu ñëpp nag ñoo ñoo ñoo ñoo ci euh, loolu mooy seen jubluwaay waaye am na ñi nga xam ne dañ ko génn pour bañ a xam heure yi ñu nekk en ligne man ma ko dindi waaye heure bu ma nit soxlaa tamit boo ma woowee dinaa la wuyu waaye tey xoolal tey ci li nga xam ne mooy lu ñuy def da ngay génn pour lan ñi bañ a xool li nga xam ne moom mooy sa heure bi kon bokk na yow da nga am heure yi ngay connecté ak xam ne moom ngay déconnecté beneen bi nga xam ne moom moo ci topp mooy nga moytu lu jëm ci sa wàllu njaboot nga koy teg ci internet bi bokk loolu lu grave la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñaara ngi nii ma ragal la ci sama xeet muy bët ak làmmiñ tey wallahi li ci ëpp ci société bi tey lii moo leen tey muy làmmiñ ak bët xoolal tey nit ki nga gis mu sol sol bu rafet ñu laa góor gi faal de sànc na boo nee góor gi faal sànc na loo ci teg macha gi ay góor gi moom day sànc sànc rek lay def yaa ngi koy teg tooke diw dee gis nga otoom diw dee gis nga këram diw dee xoolal làmmiñ ñu mel waaye nag nga jël loolu tey di ko def ay statut di ko dugal ci internet rawatina ko doom ay xale yi nga xam ne daanaka matuñu dara ay liir lañu nga am doom rek alhamdulilah yàlla may na ma doom nga teg ko ci li nga xam ne mooy internet bëti ci di wax xale bi bët bi nii la mel xale bi jëmit bi nii la mel xale bi daa xees ba tagg yooyu daa am lu muy def ci xale bi ak tooke la yooyu dañ ko war a nëbb li nga xam mënta ñàkk nga xam bu dee yow mii sax yaay joxe sa photo nga joxe sa photo mu nekk benn photo rek amaana ñu mën laa ràññee donte sax nekkul farata parce que waaw ku sàkku nag bëgg gis sama jëmm nag mën naa la ko envoyé nga xam ni kii mooy jëmm ji nga xam ni moom ngay dégg wala moom nga bëgg a jokkal waaye tey dañuy jël suñuy doom jëli suñuy soxna waaye jël li nga xam ne moom la ñuy dundee muy ndékki añ reer tey déjeuner tey croissant la am na ki nga xam ne amul sax benn mbur bu mu ndékkee nga ne tey añ bi tey lii la ñuy añee reer tey nga ne tufe la dem brioche dorée xoolal tey brioche dorée laa jaarte subhanallah mbokk yi nañ ko moytu làmmiñ la nañ ko moytu bët la ëllëg mën nañu andi li nga xam ne moom mooy fitna